fajug aajo yaa yor ko yaa say xanaa aajo ñun sant nañ texeg jàmm yor ko yaa say xanaa texe nañ ci yow Mbàkke ñun sant nañ texeg jàmm yor ko yaa nañ ci yow Mbàkke ñun sant nañ borom màggalug Tuuba santay li war ci yow fawu Mbàkke de ñun sant nañ borom màggalug Tuuba santay li ci yow faw Mbàkke te ñun sant nañ ruuy jàmm ñi yaa yor ko yaa say xanaa yërëm jàmm ñi yaa def ko ñun sant nañ ruuy jàmm ñi yaa yor ko yaa say xanaa yërëm jam ñi yaa def ko ñun sant nañ walay ñun de xam nañ ni yaa say xanaa dogon yow da duñ baaxle ñun sant nañ walay ñun de xam nañ ni yaa say xanaa dogon yow de duñ baaxle ñun sant nañ walay ñun de xam nañ ni yaa say xanaa dogon yow de duñ baaxle ñun sant nañ muccug jam ñi yaa yor ko yaa say xanaa muccug jam ñi yaa yor ko yaa say xanaa ci yow rekk lañuy muccee ñun sant nañ muccug jam ñi yaa yor ko yaa say xanaa ci yow rekk lañuy muccee ñun sant nañ tuuba ñeel na mboolem ku jub bëgg la sëriñ bamba yaa gën ci ñun sant nañ